asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi chaîne football tv nuyu na leen bu baax ziar leen di am mbégte saa ne defal leen vidéo pour ñi xamantene do bes chaîne ma leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche bobu ngeen di vidéo bu ñu dugal ngeen ma ko bu leen faté tamit une vidéo bi c'est très important mbokk internet yi ken xamul li mu doon sànq maa doon jox information comme quoi match Sénégal Rwanda finalement Kigali lañ koy joué donc euh, loolu la leen jox information mu confirmé wu maintenant ñu jotaat benen information légui ni comme quoi légui match bobu non bu équipe A bu Alusi mo fay dem mais bizarrement U20 yi ñoo fay dem maanaam euh, kii di Malik Thiaw ak kii di ak kii di Daf ñooy ànd jël U20 de dem jouer match boobu C'est pas du respect c'est pas du respect franchement donc euh, xam nga beneen bi match amical la leen neex def donc c'est li ma waxoon moo am moy que ñom dañu bëgg préparer match contre Algérie mo leen gën Itel. match bële moom itteel li parce que jël nañ première place lu dul ay points FIFA yoo fa mën sét seet dara mais quand même c'était un match pour tester d'autres joueurs finalement nous, dañuy ñëw Sénégal pour préparer rien que le match de Algérie bon voilà man parce que yow fu ay manque de respect xawna humiliation quoi même si bon football amul sentiment mais quand même ba quoi Vous U20 comme jël ay boy yu ay boy Sénégal instant dañu war a profité ay talent yu bari ay talent yu bëree bëri bëri am na benn découverte bu mu leen préparé jox euh, Mactari Sarr Amadou Mactar Sarr Inter de Milan Baba les frères Sow ay ñi ma leen wax ne du ñuy bind si noonu ñeneen ñi ay bind si noonu ñeneen du ñu ñu nekk Séville on a de très bons joueurs si ay équipes yu mag nekk Europe donc euh, bon du mois ko dem pour tester rek pourquoi pas jël ñooñu maintenant nag lenn am na man maa ngi doon kaas rek ci benn vidéo yàggul maanaam ñun dañu war a am. espoir suñu ay espoir dañu war a di football parce que ñëpp mën ñu ñëw équipe A bëri na ay joueurs yoo xam ne dama koy wax mais man man mii leen di koy wax xam naa ne ñu ñëw rek ñëw équipe A jëlee fa ñëw ñëw amuñu loolu ñii gis ngeen ci waa waa France ñu def si espoir dañ dana espoir dama ko fi nekk juste pour préparer ñi nekk loolu sax beneen vidéo la spéciale pour waxaat tamit fédération na attention attention boo leen mën am opportunité di jël yenn joueurs yi jël leen yenn joueurs yi ndax France bu jekkoo Italie bu leen jekkooyee ak beneen dëkk bu leen jekkooyee doole leen am joueurs yooyu xam nga donc ñoom dañoo fonk seen espoir donc sawar loolu li tax waa France jël Thierry sax côté management entraîneur donte dafa def loolu noonu am na profil bi yaa de l' expérience jaar jël coupe du monde ligue des champions jaar si ay championnat yu mag en tant que la mais xam nañ ne Thierry Henry tax ñu bëri sawar dem espoir booy bu sawarul woon espoir bi nga sawar léegi nag kon ñoom Malick Diaf lañ jëw ak Malick Thiaw pour dem préparer match boobu bon sens man pour man lii mënoon nañu jouer deux matchs parce que déjà kay man pour man dans l' Sénégal li ay match bariwul Sénégal li parce que aussi tamit il faut que ñu seet ay automatisme entre Sadio Mané Iliman Iliman Ndiaye ñoom seen xam nga ay automatisme quoi xam nga déggoo miinante dans le jeu xam nga loolu dafa pour préparer Coupe d'Afrique au mieux vu que match yi amuñu mais peut-être que d'autres diront que Mohamed am deux matchs en octobre contre Mali et contre Cameroun xëy na loolu baax na ñeneen dinañ la wax loolu comme explication mais man de li ma gënaloon mooy ñu jouer deux matchs quoi franchement. c'est pas du respect parce que coow li bari na dematuñu Kigali xam donc xam naa ay affaire de président ay affaire de dugg na ci bëggatuñu dem foofu ñu ne ah saay Mali daaf ak keneen boo leen paree ngay jël Boyi. yi sélectionné leen de sélection ngeen dem jouer Rwanda waaw Rwanda dinañ ñu mere <laughs> xanaa ñu am compréhension rek ñoom aussi peut-être euh, parce que bu ñu sañoon. bu ñu toogee seen i fauteuil non Sadio la ñuy gis Iliman la ñuy gis Ismaël saa la ñuy gis xam nga Gana Gueye la ñuy gis Koulibaly la ñuy gis Edouard Mendy la ñuy ñooñu pare woon nañ pour jënd ay ticket pour ñooñu c'est des joueurs tout joueur joueur bi joueur bi dajeeg Sadio moo gën a fu dajeeg ay xale ay U20 donte ñooñu talent fi di ñii seen i téléspectateur loolu Rwandais yi loolu la ñu bëgg ñii ñëw pour dëgg ay bii ay Sadio Mané moo leen fi andi woon mais boo demee ba jox leen. na euh, non graw lay jël leen booy adduna daa gudd tànk kenn xamul ëllëg la moy xew ëllëg ci biir war Rwanda ba doon ba organiser coupe d'Afrique sax mën na dugg si stade ñu duñu siffler kay def benn non non bu xamante matu ko won mais bon on respecte c'est le c'est le choix on va voir la suite peut-être que Aliou Cissé dinañ gëna a andi explication mais ci li ma li ma li ma njortoon am moy que match bi leen mës itel moy contre Algérie match bi leen itel itteeluñu contre Algérie parce que revanche le match boobu lañ bëgg c'est aussi tamit man xamona xamoon naa ne bu ñu demee Rwanda voyage tamit day metti parce que imagine jour bi dañuy jógee seen i dëkk championnat France ñiy jógee Angleterre feneen ak feneen ñëw Sénégal bëgg a dëppaat fële Rwanda jóge Rwanda bëgg a dëppaat mais c'est ça loolu mooy joueur professionnel maintenant nag pour mieux préparer contre Algérie dañuy ñëw rien que pour un seul match préparer Algérie mën a am ndam seen kaw yéen xaw ma ban jàngat ngeen si am ban lecture mais ci commentaire yi soxla naa seen xalaat à 5 10 par rapport ak li fédération bi euh, décidé naa leen bu baax wax ba beneen sur Senfootball